Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum cheikh internet de Reubeuss TV asalaamaaleykum cheikh sénégalais amaat mbégte ak kontaante jàkkaarloo ak yéen mën a waxtaan ak askan bi yëpp. tey nag dañ fi dal benn ndaw xam ne ne mën nañ ne 24 ans rek la am nekk international sénégalais di évoluer fële ca Espagne moom nag jot na jaar fii ci école de football bu Reubeuss bu Jonze en tant que poussin def carrière am ndax école de football bu jonne yakana ken kenn ko présenté ndap dem na en Europe jël fa ay titre ci loolu nak lu fi jógee dem en Espagne fum mu toll nag évoluer. ngi évolué FC di fa def tamit lu lu mucc ay te jantam ci ay club yu mag euh, bu su melni atletico Madrid tay nag comme ni nga xamé xamee Amath Ndiaye lañu dalal nek jeune nek international sénégalais waxtan ak mom ci carrière am début bi comment ça s'est passé est-ce que metti woon na. ay tamit génne ci ay anecdote lu jëm ci football Amath ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa leen di fay waa Reubeuss TV di leen dalal di xam ne émission bi am naa si contentement bi ngeen ma woowee amul si amuma si lu ma si kii di leen jaajëfal di leen dalal dalal jàmm daal. Euh, Amath mën nañu xam euh, Dakar fii nga juddoo. waaw. sa jeunesse foo ko foo ko paase. fii biir Medina. Medina. Mhm. ak euh, gis nañu ne jaaral école de football euh, bu rebeus bu Jonze Koulibaly mm-hmm. yakana né ne kenn ko présenté nga nekkoon fa en tant que poussin euh, bobu ban ban période la woon. la ah, période bi ñuy gën a nekk ay 2003 2004 la fa jaar ñu nekkoon foofu mu yokk mu yoroon ñun ñu doon jouer ay tournois aussi di voyager France di jël ay titres ba ni ma jógee foofu nii. mais sa sa début carrière en tant que poussin football bi da nga ko defoon par passion daf la neexoon wala amone nga ci xalat ne ëllëg ding ci dem ba ba nek ci international. waaw ah, amoon naa si xalaat ak gëm-gëm bi ma xalé mom la bëggone bëggoon def ba yalla jàppale si jàppale ma si. est-ce que si début bi say parents d'accord woon ñu nga football amuñu woon beneen destin buñ la tracé lool non ñom depuis bi may nek ndaw loolu lañ gisoon ci man donc après si ñom ñoma ñoo ma dugal école football bu foofu la commencé entraîner ak jongo si la ma si lañ fo si lañ ñu formé fofu daal. ngeen doon entraîner euh, stade Assane Diouf mais est-ce que jamono jooju noonu metti woon na en tant que ndaw ngeen ñëw entraîner dem ñibbi war a dem après lekk fii dugg fii comment ça te nu nu mu doon demee quoi jamono jooju. non loolu xam nga rek boo nekkee booy woon nu nekk ngay def noonu ñuy ñëw entraîner. après pare entraînement samedi dimanche après yeneen yi da dem si koñ yi di football di dund ak say xarit ay match koñ yi xam ba ni ni ni si tolloo nii daal. dégg naa match xaalis xaalis danga ko bëggoon quoi ay petits yooyu noonu da jaral lu nekk. waaw boo dëkkee Médina wala Rebeuss donc loolu day nekk sa passion quoi samedi dimanche jot nga war a xam ne da football ak say gars ak koñ ak koñ football xaalis xaalis lépp gars dañ doon teg lépp di jouer quoi. gis nañu école de football bu bu Jonzé am na xale yu ndaw jeunesse yu bëri yu fa jaar yow période boobu xam ne ñoom Ibou Sy ñu ngi fa woon euh, yan ak yan booy ngeen fa nekkaloon Ibou Sy moom pour ñu ko xamul tamit wala dégguñu ko moo fi nekkoon gardien euh, équipe nationale booy moom tamit la def fi match bu bu bu am solo ci coupe du monde bi euh, sa génération ñan ñoo fa nekkoon période boobu. ñoo sama génération man la woon si Sy ay Malick Serigne Thiam dem si yàlla si ay Ousmane Ba aussi dem si yàlla si ay Kalidou Madou ñoom Gaye Sakho ñoom ñoo fa nekkoon noonu génération boobu. bi nga jógee foofu ci nga ci nga dem Espagne ban ban njëkk wàcc en Espagne. bi may boobu maa wàcc Valladolid. Euh, da nga defoon test wala say parents ñoo la liggéeyante nga dem euh, nan la demoon wala gars yi ñu la gis. comme nekkoon nga école de foot bu jonge euh, te demul jël ay titre indi ko ci foofu lañ leen gisee recruter la wala nañu demee. waaw foo dañoo ñëwoon dañoo defoon test fii Sénégal après si la si lañ contacté jonge wax ko comme man lañ soxla woon après si lañ jëlee contact ak jonge mu leen di wan yenn vidéo ak France ñu doon joué après si lañ si lañ d'accord si accord bi pour ma mën a dem bala de lutte aussi. bi nga jógee Valladolid après da nga dem euh, Real de Madrid non kay euh, Atletico Madrid am équipe boo jaar entre temps Atletico bi nu mu demee foofu tamit da nga da nga prouver gars yi gis la yóbbu la fa wala dañ la fa abaloon bien. non man bi may jógee Valladolid maa ngi am 18 ans bi may après si laa jógee foofu dem jouer Atletico dernière année junior foofu laa ko jouer après si la prochaine année bi si lañ jouer fii laa nekkee si réserve bi après def fa benn année troisième année bi si leen ma convoqué ak pour la première équipe bi après si laa nekkee foofu ba ma abalee won jóge fofu dem Tenerife après dellu soit atletico door dem Getafe. xam nañ ne Atlético Madrid équipe bu mag la mun naa ne chaque année ci trois premiers yi Barcelone wala Real de Madrid ci lay bokk euh, lu tax toogoo foofu pour mun a def foofu gars yi gën la mën a xam peut-être aussi tant tant de jeux aussi là donc comme on est quand da ngay xool loo mën a sa sa carrière kanam donc moi dama préféré woon génn mën am temps de jeu c'est laa génnee là ñu abale ma Xetaaf ñu non ñu le ma Tenerife après bi ma jógee Tenerife si laa ñëwaatee après bi ma ñëwee nag si la ma Xetaaf cinq ans. mais depuis 2017 il ngi a une mu toll depuis 2017 pour cinq ans. Mm-hmm. Donc c'est insertion fofu, nous mu est-ce que y a dem partant le remplaçant nga fofu waaw bi may door a yegg si première année bi partant même deuxième année de commencer du jeu partant après cela la blessé blessure bi nag un an joué ma après bi may ñëwee c'est la toogee si baa bi de di bokk yenn match non. mais aussi gis équipe nationale du Sénégal mën nañ ne joueurs sénégalais yëpp yu fi ils sont aspirés à à venir jouer à l'équipe nationale du Sénégal fi mu toll est-ce que yaa ngi am contact avec Aliou Cissé wala est-ce que bëgg nga ñëw Sénégal fi jouer fii. waaw man damay ne que képp ku football a football rek mais sport bu mu mën ci doom di nga di nga bëgg a couleur sa couleur dëkk donc loolu dañuy am mbégte pour ñu dellu si waat équipe nationale jouer ko donc am nañ contact avec quelques jours ak coach et tout même bi si blessé si suis déggante nañ suis affaire beaucoup de joueurs aussi tamit envoyé nañ ma ay Les moo tax. mais Sénégal nañu Sénégal pays francophone la nga nekk fii di évoluer le xëy Espagne insertion bi dina am quelques difficultés. non doom def quelques difficultés si benn côté mais peut-être sa première année dina dina la coûter si côté langage mm. donc après ci lañ commencé naa def école foofu jàng naa après ba ni ma commencé dégg espagnol après ça va quoi gis nañu ne jeunes jeunes yu bëri dañoo aspiré à être de grands joueurs ndax xam nga léegi football dafa dox macha allah tey ban message ngay lancé xale yi nga xam ne dañoo bëgg def carrière football ba pare bëgg jël études yi teg ko de no non e-, sport étude la wax parce que donc mënoo jël sport yi ba pare bëgg ci basé wu ba jël mën a jël étude bi tegee ko de côté donc ñaar yëpp nga mën a def soit nga def étude football wala nga nekk centre formation boo xam ne di nga mën a loo xam ne day da lay jëmale kanam quoi mais mënoo nii na ngay nekk footballeur ba pare te amoo si ñeneen loo jàpp donc moo tax jarul yàkkamti lépp ñu ngi ko teg si loxo yàlla daal dina baax lu soobee yàlla. bon dañuy wax un ci ci côté social am na ay projet yoo teg. Euh, socialement parce que xam nañu Sénégal ni mu demee en plus tamit fu mu toll lan lan mooy sa programme. waaw côté social ñi ngi si bu baax aussi ñu ngi am na ay ñu ngi koy doxal ñu yàlla mu sotti si si jàmm salaam. mais tey am ay anecdote loo dund ci ci football loo xam ne tey surtout bi nga tukkee euh, gisoo kenn est-ce que amul yenn temps nga wéet xaw a jaaxle. Euh, stress yu jàpp la ndax ñu ngi Sénégal dafa neex. waaw ah, loolu bi ngay bi ngay dooral voyage si dem Valladolid metti woon na parce que xale laa après door a fii dem foofu te doo gis non du dul mën a intégré wu quoi pour xamante nit yi parce que boo noon toog yow kese nit bu ne nga fay dajal dëkk bu ne aussi dañuy nekk foofu si seen résidence am na ay beaucoup de joueurs yu fa nekk yoo ay différents dëkk lañ donc bu ngeen fa dajee yéen ñëpp li ngeen war a làkk mooy espagnol pour pour mën a xamante ñoom ñëpp pour mën a déggante aussi. mais tey ban ban anecdote nga dund ci aussi bien négatif que positif ci football boo xam ne moom marqué na la quoi si sa si sa carrière. non peut-être man anecdote parce que parce bi ma commencé jouer ba tey donc li may jëmale kanam rek lay xool quoi. non mais dégg naa temps booy match xaalis xaalis moom da nga si doon dem ba mu jeex. <laughs> Ah, waaw moom bëggoon nañ ko trop parce que munoo munoo ñaax samedi ak dimanche nga mun a toog taamoo loo def que ñun loolu lañ amoon boo ba ngay nekk booy fii ba léegi gaa yi da koy def sax boo duggee Medina Rebeuss fépp foo dem da koy gis moo tax xam rek jaar-jaar yu ndaw la rek. tey lan la la football may lu positif loo xam ne tey soo toogee di nga fier sa bopp. football pour man guma dara ni pour l'instant ya, gën a liggéey yokku entraînement yi xam xam ci kanam am lu bay suñu ginnaaw donc ci lool lañu wara japp di xalaat démb xam fi nga jugé aussi ni ci def yalla yàlla tali ya. ya, ko solo soobee comme ni ko ko gisee cheikh internaute Amath cham Amath ngay djéju lañu dalal waxtana mom ci carrière football si kam mais tay gis nañu football jeunesse yu bëri dañoo bëgg def football boo yu bari dañ yaakaar ne bon football bi il faut ñu dugg ci pour mën a am dara tey ban conseil nga leen jox. waaw bañ ñu bañ a yàkkamti seen àdduna xam ne football moom ku yàlla tàccu rek sa sa wërsëg moo ñu si donc ñu bañ a am lu ñuy yàkkamti comme parce que gis naa si ay cas yu bëri yoo xam ne bi ma nekkee fële gis naa ko ñoom ñoo a ko raconté bi ñuy am 11 ans lañ jël bato pour dem. tekki si football donc am nañu si am réussite boo xamné ne jotone nañ football Tenerife après mu expliquer ma ka ma xamné moy lool parce que lu bari pour dem Europe football jaral na len ko donc li lay ñaan ñu baña yakam ci si xamné lepp lepp dina bax inshallah inshallah tay yo tey yoo leen doon dal dal yaakaar naa ni réviser un peu sa carrière tay euh, say parents ñi fi. waaw fi ne ñoom football bi d' accord nañ ci à 100 pour cent. waaw tey ban message nga leen di lancé. waaw di leen di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen ma fi ñu fekkee sama njëriñ di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñoom samay frère ak samay xarit ànd jàmm di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu jàppale ma ñaanal ma waa Medina surtout Rebeuss aussi waa plateau képp foo xam ne am naa ko fan si amaat rek maa lay ñaanal di la jaajëfal ñu ñu ñu yokk ñu ñaan bu baax a baax incha allah rabbi comme ñu ko déggee nee na ngeen yokk ñaan bu baax a baax seen seen doom la doomu Rebeuss la doomu Pikine la doomu Medina la aussi domu Sénégal la kon Amath mën naa ne l'émission tire à sa fin te dañ lay bàyyi nga tënk rek nga tàggatoo. waaw ah, di leen di leen remercier si si programme bi parce que dafa rafet na ñu nekk ay boy nekk biir Medina di jeu entraîné école petit nekkoon si Jonze xam tey mu nekk Reubeuss TV di leen jëfal am seen contentement bu baax ak di nuyu sama grand frère yi sama famille sama ànd jàmm di leen ñaanal ñëpp ñu nekk si jàmm quoi. incha allah rabbi aussi tamit remercié Reubeuss TV ñu ngi lay remercier si sa disponibilité ak ci accueil bi dañu ñaanal yàlla suñu borom tamit euh, fu ñuy dégg ku ci mel ni Messi wala Cristiano Ronaldo ñu la fay dégg incha allah rabbi. merci beaucoup Amath merci. Reubeuss TV. mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.